salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yu 2STV la télévision autrement ñu ngi am mbégte lool teewaat fi jàkkaarloog yéen ci seen émission amul na boo ñuy profiter rek ci occasion bi di leen baalu àq di leen baal àq ci euh, tabaski bi nga xam ne moom la ñu euh, génn di leen euh, souhaiter rek li nga xam ne moo gën ci yéen yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi mu doon naataange ak nawet boo xam ne nangu na mu doon ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi lépp nekk ci jàmm ak salaam. tey nag sunu invité ci émission amul na bo ñu ngi koy wax euh, Cheikh Gueye Cheikh Gueye nag moom moo jiite menuiserie Khadimou Rasoul euh, moom i tamit moo nekk président des menuisiers du Sénégal ñu di ko wax rek euh, salaamaaleykum. maaleykum salaam Diouf maa ngi lay ziare di ziare bépp sénégalais di baalu àq bépp sénégalais di baalu àq bépp menuisier di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla yàlla yokk ñu jàmm. ci réew Cheikh Gueye wax naa ko sànq nee naa yow yaay président menuisier du Sénégal waaye bëggoon nañ xam rek d'abord. lu la boole ak menuiserie lu tax nga dugg ci menuiserie. waaw menuiserie maa ngi ci dugg bi ma nekkee xale boobu maa ngi war a am xam naa ay dix ans yooyu duggoon naa école jéem xam naa ne nag teel naa daal bëgg menuiserie. Mhm. ba suñu waa kër xool ni xam ni daal bant dama koo xawoon a bëgg defe naa looloo ma booleek lii. te mhm. puis nag ki ma yóbbu ci menuiserie tamit jàngal ma menuiserie dafa fekkoon mu dëkkoon suñu biir kër. mujj gi nag buy liggéey di ma yóbbaale ba far bant yi topp ma ba tey daal. wala mhm. ma boole ñaata at nga def apprentissage bi. waaw menuiserie nag defe naa li ma ci xaw a def xaw na bare parce que menuiserie defe naa maa ngi dugg ci at yii 68. Mhm. defe naa boobu léegi macha allah macha allah. Mhm. léegi boobu léegi ci bant daal laa nekk daal xam naa ci la ma yàlla sédd nattu ma ci rek ma ne ci. bien sûr est-ce que mos nga génn Sénégal maanaam pour euh, dem defi formation. ci wàllu yi wala lépp sa cursus yëpp ci Sénégal gii nga ko defee. waaw yi nag xam naa ni moom macha allah mun naa ci gërëm yàlla xam ni moom moo am daal loo xam ni moom moo ko ci defal. mosuma si jàngi mosuma dem fenn gëstu ci fii laa toog daal mais def naa ci li ma jot a xam daal suñu borom daal moom ma ko dee daal. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla gaa yi doon defi formation ci école yu bare daan nañu daan nañu ñëw ci ñun di ci xaw a góorgóorlu di dara. ba li ci mujj sax am na école bi gën a mag ci ci àdduna nekk Nantes di def ay bant mm-hmm. seen stagiaires di liggéey ci bant seen stagiaires dañuy ñëw Solida ba léegi di mm-hmm. for dara mm-hmm. te bu ñu ñëwee nag léeg-léeg dinañ toog sax daa dina ñoom ñun ni ñu defee concept daf leen jaaxal parce que ñoom benn concept dañ si nekk ay deux mois trois mois mais fii gis nañ bu ñu ñëwee daal ñun ci maanaam trente minutes ñu def dara Mm-hmm. loolu xaw na leen jaaxal. Mm-hmm. kon nag ñu xam ne loolu moom yàlla la rek quoi. Mm-hmm. waaw mu mel ni rek euh, li nga xam ne moom moo di euh, menuiserie fii nga ko jàngee ci réew mi euh, ba léegi yaa ngi koy exercer yor sa atelier bopp yor sa nu mu tudd industrie sax laa ko laa ko mën a woowee waaye époque ba ngay jàng menuiserie bi atelier ba nga ne woon est-ce que mos na réaliser benn réalisation boo xam ne marqué na la benn œuvre boo am solo. waa atelier boobu atelier bu ma marqué la parce que suñu patron ki ñu jàngal métier dafa mënoon bant allah xam ko. te et puis marqué na ma trop parce que dafa marqué ci ay bopp yoo xam ne dama leen tàmmoon gis te ay kilifa yu mag la ñu woon Sénégal. comme man bi may jàng métier dama xamoon ñoom Pa Kéba Mbaye yi dañ daan nekk ay cadre kilifa ñëw toog ci atelier yi xam menuisier yi di seet ci ay nit ay vieux Gabriel Dia. même Senghor président Senghor dañ ko xamoon. Senghor si boppam dañ ko xamoon parce na ñëw maa ngi jàng métier rue neuf angle kon loolu lu ma marqué la ak ñooñu ñu fonke woon bant ak nu ñu doon consommer local. man loolu lu ma marqué woon la léegi loolu laa gisatul ñiy xam ko. mais yaakaar naa tamit euh, formation bi ak njàng gi ñu jàng ci parce que nit ñi bu ñu daan jàng école. dañ leen daan formé waale. ñu xamaale tuuti bois. xam massif xam dara école yi ay drafos dañ daan xam bant. mais defe naa léegi nit ñi ñoo am notion wu fraqué kes ak i euh, bois escaf bi jógee Chine xamuñu dara ci bant. Hmm. loolu mooy problème bi mais nag li ma marqué nit ñooñu ñoo ma gënoon marqué quoi. waaw mais est-ce que am na œuvre boo xam ne réaliser ngeen ko fa boo xam ne nit mën na ci teg baaraam. waaw œuvre yi ñu fa réalisé yi ma nit mën a teg baaraam bari na mooy camp yi fi nekk ba léegi camp Jal Diop camp Lat Diop camp yooyu yëpp suñu patron moo ko gagné woon. Mhm. moo ko gagné woon ñu koy liggéey ak bantu Sénégal bi bois de dimb. Mhm. du ma ko fàttee moom œuvre yooyu su ma rombee ba léegi yooyu laay fàttaliku quoi. Mhm. waaw waaw mu mel ni kon consommer local euh, jamonoy Senghor ba ci jamono jamonoy Abdou Diouf réalité la woon parce que ñu ngi doon utiliser le mobilier bi nga xam ne fii lañ koy defaree ci réew mi. waaw consommer local réalité la woon moo tax ñu siy wax bu baax parce que boo xoolee moom laay wax dafa am meuble yoo xam ne finance moo ko daan commandeel boppam. Mhm. yàgg naa ko wax gouverneurs yi ak préfet yi ñu daan affecté ak professeur d'université yi même meuble yi ngay gis ba léegi biir université gars yi yor ko. Mhm. yooyu yëpp ñun ñoo fi daan liggéey. kon consommé local daf fi nekkoon ay SAIB nekk fi ay Doricourt nekk fi ay Bóoli bànnee ne fi Mbay Ndooy nekk fi ñoo ñëpp ne fi consommé local daf fi mosoon ba pare menuisier yi nekkoon meilleur menuisier si àdduna ñun lu ñu delloo ginnaaw kañ maara dem si mooy politique yi rek mais ñii liggéey la ñu mën xam ko yàlla may ñu bant kon daal loolu lu ma mën a fàttaliku la xam ni consommé local daf fi nekkoon ba si Abdou Diouf mm. parce que man ba Habib Thiam di tukki damay fàttaliku benn période dafa woo sage bu ñuy wax Jama Gueye ne ko maa ngi dem voyage vacances mhm. Cheikh Gueye bi dama bëgg mu changer suma bureau mais laaju ma ko sax lu ma bëgg mu defal ma lu mu def baax na ak salle de mhm. conférence bi mhm. si la ma Jama Gueye jox ak compte ak Ousmane Ndiaye SG bi fi nekkoon ma defar yooyu meuble ba Habib Thiam ñëwee dafa kontaan fay ma ba pare may ma après ci la toog du Diouf nag sax woo ñu recevoir ñu loolu moo jur mobilier national voilà mais boobu ba léegi nag mun ñu ci avancer parce que yeneen système yi fi am moo tax xam naa. waaw kon bu mu la déggee dafa mel ni bi Abdoulaye Wade ñëwee di président Abdoulaye Wade consommé local bi dafa xaw a sooxe. ci wàllu mobilier. waaw parce que bu ñu nekkee avant 2000 defaroon nañu pour prototype yi. Mhm. ba ab état bi fay ñu suñu ay prototype fay ñu échantillon yi ñu defar yëpp ba nga xam ne lancé commande yi moo fi waroon dem après ci la Abdoulaye Wade ñëw président Abdoulaye Wade. Mhm. bi président Abdoulaye ñëwee. xam naa tamit après ak système bi jigéen ñu commencé xam yoonu Chine ak ñoom bu ñu ubbee ko ci lañu ñu poqati affaire bi suñu loxo ba tey ñu mun a ci la suuf maanaam ci lañ jël marché bi ñoom seen bopp bopp ba léegi di livrer seen ay bopp boo xoolee état bi ci kaw ba ci suuf loo fa làmb rek importation consommer local defu fa dara te loolu moom laay wax toujours su ma koy wax dama koy wax en tant que patriote baaxu ci économie dëkk parce que tey ñun ñun ñooy créer emploi yi ñun ñoo mën a dimbali impôt bi ak état bi mu dox normal mais ñun buñ ñu poqatee li ñu yoroon état bi day souffrir parce que bu boobaa dootuñu mën a fay dara te teewul tamit ba léegi impôt yi mi ngi ñëw suñu kaw IPRES yi mi ngi ñëw suñu kaw mais ñu ngi ciy débrouiller lu ñu mën te loolu baaxul ci état bi état bu amee xam ni fii lay purger daal fii lay amee lu mu jëlee pour dund daf ko war a fonk ndax bu fekkoon da am benn nag sax yeew ko di ci jël meew xanaa léeg pour mun fa fekk nag bi ëllëg mais entreprise loolu moo tax ñu sooxe entreprise yi sonn. parce que loolu yëpp dañ ko jël ci ñoom. te gis nga damay dégg léeg tamit ñu naan comme li am fan yi vacances citoyennes loolu baax na. mais dafa am ñoo xam ni ñooy ñoo nekk ci kër yi. parce que Sénégal chaque famille booy seet lu mu bon bon am na benn menuisier. te menuisier woo daan na fi dindi souffrance di faj dara di indi ceeb di indi diwlin. moo te banlieue bi loolu moo tax mu metti parce que banlieue bi fa la dëkk. gars yi xam liggéey fa la ñu ne gars yi nag bu ñu sonnee dëkk bi day sonn kon na ñuy bëgg delloo si nit ñi rek ñu jël liggéey bi delloowaat ko sénégal yi te président wax ak ñi waral a lijjanti loolu daaj yi ak yooyu ñu mun ci doxal yoon est-ce que président ci boppam muy président Macky Sall mi ngi consommé local ci wàllu mobilier la ñuy wax toujours non président nag xam naa bëgguma ko tooñ mais foog ma tooñ ko parce que tamit président consommé wu parce que président moom ci boppam buy consommé local kat dafa taxaw ne ministre mi wax na leen nañu jël suñu meubles yi suñu bureau yi équipé wu ci. mais ñun waxuñu ministre yi ñu équipé suñu bureau moom mooy suñu président de la république moom moo war a njëkk a suñuy bureau mhm. consommer suñu ceeb. Mhm. consommer suñuy dàll. mais président warul jox loolu ministre yi ba pare toog te président man li may xool na ma baal. même salle de conférence yi muy recevoir ba léegi nii. yëpp chinois la ba mu ramoon buntu këram buntu mais buntu kër bi chinois la. kër Macky Sall bi nekk euh, Mermoz waaw la fa monté. ko dindiw sax naa wax ko mu dindi ma may ko buntu Sénégal hmm. que buntu la fa def rafetul ci moom moom yàlla moo ko jël mu nekk suñu président. kon moom suñuy jooy moo ko war a njëkk a dégg. moo ko war a njëkk saafara joxe ci exemple. mais président taal salle de conférence bi toog yëpp chinois la. te gis nga dëkk bi naa la benn wax gis nga euh, Habib Thiam président euh, euh, premier ministre Habib Thiam. moom salle de conférence am bureau mag yëppam local la woon. après am na keneen ku ñëw donlu ko ba léegi te loolu mun naa ko jël seere mooy ministre Ablaye Diop finance. bi mu ñëwee salle de conférence maa ko defar ba léegi ministre Amadou Ba bi moom lay utiliser. may xool am na ci ay quelques nit xool comme ki nekk IGE Nafi Ngom Keïta defe naa. daam bureau présidence yëpp local la ko defoon dafa amee nit ñoo xam ne danga leen di xool ci loolu dañ lay kii daal mais am na ñoo xam ne ñi fi ne nii ci kaw ba ci suuf ñoom ñëpp importation bi la ñuy jàppale te loolu du yëfu patriote gis nga patriote du defee noonu dangay ngay xool sa dëkk xam ne lii moo fii sooxee nga taxaw saafara ko xam ni ñii li nga leen di jox si yow lay dellu si parce que famille bu ne Sénégal am nga benn menuisier kon loolu rek war na tax rek ñu bañ lii te ñun lii bu ñu ko bëggoon defloo chinois yi di leen forcer lu ñu am ñoom duñ ko jël mm. beneen xeet du ko def ñun sénégalais rek ñoo xeeb suñu bopp nangu di jël lii di ko def te jekkul mm. baaxul baaxul suñu dëkk moo tax dëkk bi paan paan bu yàgg nii dëkk bi doo koy xool baax dafa dellu ginnaaw dellu ginnaaw dellu ginnaaw boo xam ni dafa doy waar mm. te loolu ñan ñoo ñu koy indil mais ay nit ñoo xam ñoom seen soxla bopp la ñuy jaamu wala soit que nekk ay politique wala yoo xam ne ñoom ñun nekkuñu politique ñun lu doxal Sénégal la ñuy wax ñu doxal Sénégal la ñu wax te li ñuy jooy yëpp nag suñu ko président lañu koy jooy te président dafa ñu war a déglu bu baax xam ni mag du jooy kese te dara xewul kon y a problème menuisier yi dañu sonn dañu sonn bu ko bëggee ni ko gën a gëstu te menuisier dañu sonn te kontaanuñu dañu kontaanul nañ leen jàppale bu baax ñu liggéey gis nga fii boo mosee xool chambre de commerce booy dem nga xool analyse ñoom Mbassou Gueye ñoom ñoom euh, Babacar Mbaye suñu mag yooyu suñu maam yooyu ñoo daan gagné exposition yëpp te tubaab bi daan nañu exposé. Hmm. doon ay sénégalais di liggéey lu dara jarul. Hmm. tey boo xoolee tubaab même seen bunt yu nekk Paris yi ñu daan defar ba léegi yu ëpp fi lañ ko daan defaree. Hmm. am nañ suñu boîte dimb bi ñoo ñu ko gën a xam fop daan ko fi jëlee di ko yóbbu. waaw très bien yaa ngi wax léegi consommer local euh, ne président Macky Sall boo jógee Palais ba Mermoz euh, la mu fay utiliser yëpp ay chinois la ba ci buntu këram ba nekk Mermoz pourtant président am na lu paradoxal foofu moom moo taxaw woote consommer local gis nañ ko mu dem Ngaye sol dàllu Ngaye dàll ba sax un million la doon jar. rax ci dolli mu woote li nga xam ne moo di autosuffisance en riz te autosuffisance en riz boobu je pense que euh, ceeb la bu ñuy mbéyee fii ci Sénégal donc loolu weesuwul li nga xam ne moom looy consommer local consommer local boobu dafa je pense que aussi président Macky Sall mi ngi ci. non idée bi baax na wax ji baax na mais jëf ji moo xaw a des. parce que président même daal la boobu sax que géwél bi offrir à un million. jour boobu la waroon lancer ngaay ba faw mm-hmm. ba dafa waroon taxaw ci taxawaay rek si mi daal bi sol rek taxaw sol ko ci sol ko ci taxaw bi waaw ba pare di ñu wan dàll bi toujours mu koy sol loolu mooy loo xam dina mun yëngal dëkk bi pour gars yi dem ci consommer local tey jii da ngay xool tey même ceebu waalo boobu bi mu koy testé ci loxo bi di ko raay président yàlla may na ko waroon na mun jël saaku ceeb ay saaku dugal ci otom bu buggee lancé ceeb bi dëggantaan day ñëw ba pale yàlla macha allah may na ko jabaru sénégalaise muy président bu ko njëkk am mu togg ceebu jën yu rafet rafet yoo xam ne ñu koy wone gars yi di ko consommé bu boobaa la ñuy def consommé local bi dëggantaan te man gis nga consommé local bi may wax nii. mun naa jëm gën a sore man du wax ci man. lu may dundal te maa ngi jël kaaba gi seere di jël suñu borom seere man su ma lekkee ceeb bu dul ceebu waalo feebar giñ naa ko ci rasulullah yi mm, kon man loolu dëgg la parce que mënu mooy nekk nii man loolu laa mën a dundee su ma kër ceebu waalo bii moo force nekk te boo waxaguñ ko su ma lekkee beneen ceeb damay am bouffée de chaleur damay feebar damay tawat mm. waa parce que loolu moo war a nekk suñu cër ñu doon ay patriote mm. waaw nee nga sànq dafa am ñoo xam ne euh, ñoom ñooy importer li nga xam ne moo di mobilier bi euh, étranger bi notamment chinois bi euh, ñooñu di ko importer ñan lañu. mobilier chinois bi ñu koy importer ñoom xam nañ leen parce que ñu ngi ci biir système bi ndax ñoo jekku marché bi. système bi maanaam état bi bi. parce que ñoom ñooy livrer ci kaw ba ci suuf la nga gis palais accès yi ñu am sama aw ma ko. boo demee waxuma la fen de pale de ministère de primature de impôt ba foo jaar IPRES caisse de sécurité sociale yëpp. fa ngay dugg di fay sax di souffrir ñoom ngay fekk ñu équipé ko ñun gañewuñu dara ñu ëpp doole ci loolu ba pare. te am na tamit loo xam ne daf ci xaw a am. parce que boo xoolee tey lu mel ni état bi APIX yi muy monté société yooyu en vingt quatre baax na trop mais d'une part am na ay conséquences yu muy def ci entreprise. parce que ñu gis marché boo xam day taxaw ba pare nit ki dugg APIX am nineyaam am affaire am ñëw nekk sa concurrent ci même jour ba pare bu nekkee sa concurrent yow li am ci personnel. amu ko moom chauffeur lay am ak benn monteur kon ce qui muy fay IPRES par mois douze mille francs la li muy fay euh, caisse de sécurité sociale du mat douze mille mm-hmm. ak impôt bu muy déclaré après kon kooku bu ngeen di dem di régler sax ay quitus moo lay gën a gaaw am quitus mm-hmm. moo tax président war na jël loolu yëpp xoolaat entreprise yi xool ci yan anam la leen di teg mm-hmm. ñu encadrer entreprise yi pour ñu dem parce que xam nga lu mel ni président Macky Sall moom dañ ko indi yàlla indi ko mu ñëw kenn kenn xalulatul mooy ñëw yàlla mooy tànn nit mu tànn ko mu jiitu ñëpp. président bi mu ñëwee programme sax moom bu ko neexoon bañ ko indi Sénégal yi amoon nañ programme. programme bi mooy lan mooy ñu rupture rek la ñu soxla li fi amoon yëpp di nattu injustice bi ak problème yooyu yëpp dindil ñu ko. loolu rek la ñu soxla woon ci président Macky Sall jaruloon sax mu ñu def ay kilomètres fii ba feneen. loolu rek bu ko defoon ak souffrance sénégalais yi rek mandat mun na ko réussir bay wax leneen. ñun loolu rek lañ ko ñaan loolu rek lañ ko soxlaal ñun bañ koy votel fekk na ñu ñuy dund injustice bi bu baax a baax a baax loolu rek lañ ko soxla mooy maanaam importation bi nga xam ne da leen di euh, euh, concurrence hmm. wax ci wax ci dolli ay sociétés yoo xam ne mën nañ ko créer ci vingt 24 heures ñu ñëw soumissionné au même titre que yéen yi nga xam ne yàgg ngeen fii waa waaw mais du Diouf man sax dinaa la gën a leeralal dara lu gën a sore xam nga mënuma toog xool premier ministre di defar euh, discours politique général assemblée nationale di déclarer pour nationaux yi quinze pour cent quinze pour cent nga koy jox ay nationaux quatre vingt cinq pour cent bi nga jox ko importation man loolu mënuma xam naka lañ koy justifier tey boo toogoon sax même daam bi fi nekkoon premier ministre Mimi daan na ko soixante pour cent wala soixante cinq pour cent loolu bu ñu koy def du xaalis bu ñu yóbbu suñu yëf la suñu dëkk lay def suñu dëkk moom metti suñu dëkk neexul kon balaa ngay laax jaay laax lekk dañ ko soxla aar suñu bopp lu ñu am barewul te yàgg naa wax dara nee naa leen gis nga suñu bureau yi man damay sant yàlla gis nga bureau bi moo defaloon Habib Thiam wàcc na bu yàgg mi ngi dund ba tey Ablaye Diop loolu mu yor mi ngi dund ba tey dëkk yooyu lay gañee du chaque at nga jëndi bureau baaxul baaxul dañu war fexe benn bureau bi am balaa mu fay mel ni bureau rosu dal te balaa du daanu mukk du ko cinquante ans taxul ñu tàqali ko parce que amuñu alal mais bu fekkee chaque semaine ñu tayee suñu ay jigéen jëm jël dem ñuy jëndi di fournir état bi di jëf ay business baaxul mais jigéen ñooñu ngay tudd hmm. ñan lañu waaw non jigéen ñooñu ñoom ñu ngi ci système bi ñoom bu ñu xoolee xam nga loolu xool ko du jafe président bu jëloon renseignement bi wala ñu dugg ci ñiy jënd def achat état bi rek mhm. mooy DMTA bi nekk fii rek dina xam ñan la bu xoolee rek dina xam dina xam naka la jigéen yi jekkoo marché bi te jigéen yi am na si ñenn du ñëpp nag am na ci ay dage yoo xam ne ñoom la ñu àndal. da nga bëgg wax ne dafa am complicité. am na bu baax ay autorité ci biir. Euh, état bi am na bu baax am na bu yoo xam ne fi ne guddi dañu pour jàppale ñu mais am na dage yoo xam bu gis seen boutique te président de la République lu mel ni moom nu mu taxawee toll yàlla yëkkati ko mu gën a kawee ci lépp ci réew mi président génn conseil des ministres taxaw ne wax na bés ni ki tey ay ministres am nañu consommé benn ministre am consommé wul dara ba tey. ba fii ñu toll. waaw te man président sax nekkuma pale bu ma dégaloon ma def ko. mais ñu mu wax defuñu dara. gisuñu kenn ba tey kenn jëndul dara quinze pour cent bi ñu wax giñ naa ko ci rasulaay dawul. maanaam pour cent paaru marché. public bi bi ñu leen jagleel yéen nationaux yi. mais loolu war ko sax nangu loolu ba ko premier ministre bi waxee. te premier ministre ban premier ministre la Mohamed Dionne la wala ki ko jiitu Mohamed Dionne. moom moo leen jox 15 pour cent. moom moo leen jox 15 pour cent. mu ngi moom moo woote woon au travail. waaw au travail waaw au travail au travail nag. waaw suma nit la te moom war na xam mbir mi. parce que au travail ba ñuy fondé Solida di ko tabax di defar entreprise yu ndaw yi pour ñu jóg boobu au travail mi ngi fii ci Maguette Diouf xam na entreprise bu baax a baax waroon na ko xam. kon au travail bu demee ba taxaw premier ministre naan. tey nañu jël 15 pour cent jox ko nationaux yi 85 pour cent yi joxe ko man tey bu fekkoon 80 yi mooy importation mooy import 85 pour cent tey monsieur Diouf man maa ngi nii di xuloo di wax di dem di dugg di génn. mais man tey bu ma doon koo xam ni importation kenn dàquma ko jigéen ñi mosu ko maa la ko gën mën fop fu ñu tegee benn ma teg 50 conteneur dàq ñëpp ci biti yor samay entrepôt. di liggéey rek di génne di monter di fay impôt mille di fay treize 12000 du ma yor benn charge mais mënuma loolu sama cër moo looloo ci Sénégal. bant bi yàlla natt na ma fi sédd nañ ma ci te Sénégal yëpp xam nañ ma ci xoola su am dernier menuisier Sénégal buy mujjee doon ci bant man lay doon mm-hmm. waaw mais li ñu leen di reproché yéen yi nga xam ne yéenay artisan sénégalais yi laay wax sax d'habitude mooy seen liggéey euh, souvent dafay manqué lu ñuy wax finition maanaam daal euh, xarañ gi ci war a nekk xëy na souvent dana ci nekk waaye set gi mu war a set ak ni mu war a euh, nekkee liggéey bu professionnel day des souvent ci seen liggéey yéen artisan loolu nga wax lu am la c'est dëkk dafa am fu muy egg dëkk da ngay jël say artisan say baykat peuple dañ koy former yar ko defar ko tey dëkk yi jekk àdduna bi yëpp du fu neex waaye génnee dañu am ay centre de formation créer ay affaires yu baax dugal ci gars yi pour gars yi mën a jëm kanam xam nga tey yow mun nga xam li yàlla moo la ko defal mais am na keneen koo xam ni yow mun nga ci am don mais am na koo xam tey ya foog ñu foog ñu sàkko ko foog ñu jàngal ko ko kooku nag war na am ay centre ay place yoo xam ne ko ko fay jàngalee mais dëkk bi da ngay xool du ñu former kenn ci dara lu mu neex waaye noonu la mm-hmm. mais loolu baax dañu war a former peuple bi jàngal leen liggéey mm-hmm. ubbi ay centre de formation comme njàng mi sooxe na yàgg na laay wax toujours gis nga université bi ngay gis nii nga baal ma dañuy jàng ba pare dem toog chômage kon nag ñu jël étudiants yi commencé am xam-xam ñu def leen sax ay nitu métier bu boobaa dinañu boolee xam-xamu université boole xam-xamu bant kon kooku ñooñu dinañu xam lu bare. mais li yéen si seen biir atelier yi lu tax finition boobu ñu di mën nañ ne euh, am na ñoo xam ne ñu mel ne yow peut-être xëy na ñu ngi toppatoo loolu euh, di ko di ko di ko fàggandiku mais finition bi manqué d'habitude ci liggéeyu sénégalais yi euh, loolu yow noo ko noo ko mën a analyser. au-delà de la formation. man bon man suma lu bopp laa xam te xam naa ni si yi ma àndal. Mhm. ñu si mun liggéey bari na man mii sax ñu ma jàngal métier ay sénégalais man sama patron sénégalais la. kon menuisier bu ñu yemee fii nañu xam ni politique yi ñoo leen delloo ginnaaw ndax boo juddee ci denn affaire xool lii muy tóortóor di fi sax loolu danga koy sàmm di ko roose. tey ñii dañu fekkoon ay menuisier yu mag yu meilleur menuisier Afrique yi nekkoon Sénégal. Koweït Libye yëpp fi lañ ko doon jël see Gabon koo laaj ñun ñoo la jàngal métier. mais lan moo ñu delloo ginnaaw la ñu war a xool. lan moo tax place bi ñu nekkoon ñu jógee fa dellu ginnaaw loolu lan la. loolu la ñu war a xool loolu du man loolu état moo ko moom ne sama gars yi amoon nañu xam-xam sama gars yi dellu nañu ginnaaw nii lan moo leen delloo ginnaaw kon gars yi la mais mën jey fu ñu nekkoon centre de formation yi waroon na bare trop ñu leen di jàppale bu baax di leen dimbali bu boobaa Maleek dëkk yëpp lañ mos di équipé wu mais léegi Chine jël na marché boobu suñu loxo da jël na marché boobu suñu loxo mais ñun ñoo moomoon loolu yëpp mais suñu dirigeant yeewu ñu ñu ci affaire politique rek xeex mais newul ne aussi seen i prix yenn euh, menuisiers locaux yi seen i prix dafa xaw a par rapport ak yi ñuy importer ba tax na nit ñi souvent ils préfèrent jënd importer bi. waa loolu mun nañ ko wax parce que tamit ñun suñuy prix léeg-léeg ci massif bi mun na xaw a cher parce que la moom war a mun a cher moom laay expliqué. Mhm. xam nga tey benn mètre cube buy jar Abidjan cent soixante mille bu dugg see Dakar di jar quatre cent cinquante mille. Mhm. lan la si douane teg yan taxe la si teg ñun suñu dëkk taxe la ñuy dundee te suñu douane dañ koy laaj objectif. Mhm. waaw nu mu gën a dëgëree rek gën a baax. loolu bu mettee day dal ci entreprise yi loolu moo tax après bu xawee génn xaw a gën a yomb. da bëgg a wax ne bant bi moo cher. bant bi moo non bant bi cherul mais buy dugg si suñu doon a gën a cher. Mhm. bant bi parce que li mu ciy fëgg ak magasinage yi ak frais tax taxe port yi bu paree rek da ngay gis loolu rek day ëppaat prix mètre bi. Mhm. waaw loolu ñu bëggoon tamit état bi xool ko te état bi tamit bu mu mënee tamit xool menuisier nu mu leen war a gën a dimbalee. ma mhm. waxaale ko bépp menuisier Sénégal bi nekk fi ñu nekk nii guddi état bi war na taxaw xoolaat sa situation même ci sax ci niveau fisc beeg ci mu dimbali la parce que gars yi dañuy yanu toog amuñu liggéey ba pare di yanu ay boru état dafa diis dafa metti kon entreprise bi foog état bi dugal loxoom bu baax ci ñoom gën leen jàppale te jàppale entreprise yi moo gën a yomb xam nga tey di nga dégg sax état bi déggoon naa ñu ne dañuy dem jënd ay tracteur pour jox ay baykat fii benn tracteur marque Ferguson 37 millions lay jar machine laboureuse bi di jar 8 millions ay quelque baykat laa te waa ji bu fekkee dafa dëkk fa amul ndox bu bayee nawet bu uri bu defee labouré ba pare day gaarewaat ba déwén te ñun tey boo xoolee dix menuisiers yoo boole yu ne ci benn rox combiné bi nga leen di jëndee boo ci génnee tax bi du mat six million te bu boobaa ñooñu mun nañu développer lu bari ci walaakaane gi am ci dëkk. kon daal état bi foog mu dugal loxoom ci d'abord euh, ni ñu mën a woowee maanaam seen matériaux yi ngeen di liggéeyee il faut mu dugal ci loxoom gën ko wàññi ni di taxi yi ba tax ngeen mën a yéen wàññi mobilier bi ngeen di proposer Sénégalais yi. ba pare dimbali entreprise au niveau de fisc yeeg au niveau de yooyu parce que entreprise dañu yoon ay bor te amuñu liggéey. Mm-hmm. état bi mun na dugal loxoom ci loolu yëpp. Mm-hmm. xool bu baax naka lay organiser ba pare delloo nag suñu liggéey suñu liggéey bi ñu jël téye ko. ñu delloo ñu ko. Mm-hmm. parce que dëkk ku fa dëkk ku ne rek. am nga loo xam ni moom moo fay sëccër quoi. waaw euh, ñu daal mel ni am na benn jamono nga proposé gouvernement bi ay prototype pour euh, ñi nga xam ne ñooy institution yu mel ni police mel ni gendarmerie ah, nga proposé leen woon ay prototype mobilier euh, foo ci toll. waaw loolu maa ngi koy proposé ba tey sax parce que si jóg moom parce que man gëm naa ni toujours rek menuisier laa war a des comme nag xam naa ni ci la ma yàlla sédd ci laa war a nekk ba keroog may noppi ngi ci ba tey. bi ma koy proposé prototype bi mi ngi fi xool nañ ko bon ñu ngi toog daal di dégloo xam ni yàlla xëy na mun na ci def amagul mucc moom gendarmerie ñoom ñoom ñu ngi ciy avancé quoi du ma mun a def sax lu dul gërëmaare général bi mm-hmm. ak euh, colonel Konaté bu gendarmerie Colobane vraiment ñoom ay patriotes la ñu ñoom moom amuñu lu ñu la woon parce que nit ki mënul yor sa sécurité ba pare yoraat di la joxaat sa sa liggéey. Oh, maanaam daal pour l'instant gendarmerie rek lañ mën a jàpp ne. ñoom dugal nañ loxo ci li nga xam ne mooy seen liggéey yéen. ñoom ñu si siy dugal seen loxo. waaw bu weesoo gendarmerie euh, état bi. Euh, institution yi amul non euh, keneen gisuñu ko te loolu man li may wax président moo ci war a njëkk. président man bu ma joxee bureau bi giñ naa ko ci Rasulullah ma defal ko bureau bu mu mosul gis. xam nga du caagante ni wala keneen xoola du caagante ni ñun. lu caagante ne ñun ay nit ñu ñuul lañu ñu liggéey nit da ngay gëm sa bopp man mi di wax ak yow maa ngi koy maa ngi koy sante yàlla man damay def High Point damay def North Carolina damay def LA damay def salon du meuble de Paris damay def foire de Nuremberg damay def salon yu mag yëpp ci àdduna dama koy def même xoola maa ngi ciy sant yàlla bu baax tubaab yi xam naa ni am na lu leen yàlla may ci bant waaye man maa ngi gërëm yàlla bu baax faalewu leen mm-hmm. giñ naa ko ci rasulullah te bu ñu yàlla mayee ba li ma bëgg monte ma monté ko di xam li ma la waxoon jël naa la seere jël naa bépp sénégalais faalewu ma sax roche ba waa mm-hmm. kooku ma bàkkoowu ma ko nag mais ci doole yàlla laa ko bàkkoo mm-hmm. maanaam daal wóolu nga sa bopp yàlla daal laa wóolu te xam ne am na lu ma ci may mm-hmm. lii xam naa day macha allah macha allah sañ naa nag fëgguma suma dënd waaye ma bàkkoo ko ci doole yàlla am na lu mu ci yebbi ci man waaw am na benn association boo leen euh, taxawal wax naa ko ci njëlbéenu émission bi muy menuisier Sénégal maanaam daal da ngeen a dajaloo yéen ay menuisier euh, boole seen doole ngir maanaam euh, yi nga xam ne moom ngeen bëgg a xeex xëy na mu sotti xanaa da ngeen bëgg nguur gi wañ loxo nguur gi moo tax ngeen créé association boobu. waa association bi sax xam naa ni nguur moom war ñu egg ak moom ci wañante parce que nguur gi naa ko dafa ñëw falu ci suñu. kàddu ak suñu doole war a jaamu suñu soxla daf ñu war a déglu parce que association boobu may wax ni ay menuisiers yu jommi rek yu jaaxlee ci ne coono ji laal leen affaire yu dëgër këng ci seen kaw man nag ñu def ma seen njiit man ne ci di wax ci seen kàddu waaye ñu bëgg président mu gën a gestu sénégalais yooyu mu ngi ci quatorze régions yëpp ñëpp a sonn sonn nañu trop trop trop trop am na menuisier yoo xam ne liggéeyatuñu gis nga dafa am suma ay rakk yu nekk Medina di liggéey. Mm-hmm. des fois dañuy waxtaan ni suñu dajee ñuy wax ci affaire kii menuisier la yi bàyyi. Mm-hmm. moom laa benn jour gis nga même marchand ambulant yi. Mm-hmm. xoola genn wàll gépp ay menuisier gis nga dawalkatu Jakarta yi nekk ci àll bi suma gars bu ñu demee tournée di di jëli ay membre ci àll bi. ne da ngay toog benn waaye ne la xaaram woo suñu patron. seen patron ñëw fekk mi ngi doon dawal Jakarta. ay ngote ngaay ak Thiès chauffeur Jakarta la ne bàyyi na menuiserie bi si loolu la ne. mais am na booy nee biir Medina da ngay toog ba si yàgg di raboté wala ngay siyee benn borom café Touba romb la ne la booy may ma ñam nga puus mu raboté lu ma maanaam ñam ji liggéey bi waaw parce que menuisier loon dafa bàyyi mais ne day raboté normal siyee normal dem loolu baaxul xoolu ko am métier dem ba tee si jaaykatu café loolu état waru ko nangu problème am na ci loolu ci dëkk bii nam nañu xool bu baax gis nga moom laa wax keroog ne nañu vraiment président créé na ay bourses familiales di dimbali famille gis nga bourse familiale état bu jaaree yoon soxlawul lii bourse familiale da ngay dugg ci loo mënul sax ak di ko diggee te mun na bañ a egg mais xettalil kër gu nekk fa ne rek am métier mun na yor kër ga. benn ouvrier ci kër moo gën bourse familiale ñett ci biir kër. man moom laay wax dama ni ba may nekk menuisier bu ndaw di daaj ban sax. Hmm. boobu yàlla def na maa ngi góor góor di jox sama yaay. boobu yàlla def na maa ngi dajale macha macha allah ba am ma war a mun a dugg. Hmm. boobu man loolu maa ngi faj sax soxla ñuy jàng mag maag ñi ma féete ndaw. te ñu nekk université war a dem boobu maa ngi faj seeni i soxla loolu du dara nag mënu moo ko bàkkoo mais métier moo am barke boobu te surtout menuiserie nag du métier bu ndaw parce que daanaka moo jur métier yëpp te bu nekkee ci dëkk nañ ko fonk dañ ko war a fonk bu baax parce que xoola tey association bi nombre membre yi mu am te xanaa Sénégal kër goo dugg mun naa la waatal ni sax président sax am na mbokku menuisier amul ko amul mbokku menuisier. waaw ñaata ngeen ci biir association menuisier Sénégal. Ah, association bi nekk nañu vingt cinq mille cinq cent et quelques membres. te dafa gu vingt cinq mille. barke Rasoulaay te dafa guñu fépp. vingt cinq mille moom électorat la. moo tax te xam nga moo tax rek ñun. nee nañu loolu électorat la lépp la waaye ñun lu ñu yëkkati. mooy nañ ñu jox suñu liggéey. foofu la ñu yemagum ñu. mais 25000 yi ay capitaine d' industrie lañ. ay capitaine d' la njiit yi la waaw. bokkul ak ñi ñu employé. Euh, bokkul wala ñooñu ci lañ bokk. non non bokku ci. bokku ci ay gars yor usiteurs kii lañu ay ay ouvrier lañu. Mhm. te lépp na maa la koy giiñal ci rasulullah mhm. suñu entreprise bi amul sax du affaire pii dem jël ku bokk ku ñu jël ku nekk bant daf la concerné soo dul menuisier tapissier nga wala ngay liggéey ci bant. Mhm. loolu rek la ñu jël. ku nekk ci leneen maçon soxlawuñu la ci. waaw kon nag foofu la ñu toll. te dañu bëgg état bi dégluñu bu baax. déglu bi mooy que mu jël suñu gëdd mu jox ñu ko. xam nga lu mel ni ay président des fois ñi leen di wër leen di nax. président kii day wax président kii dale président dëgg-dëgg war na ñeme warul ñeme président fora notion di déglu parce que tey loo ragal tey wala loo ñeme rek ëllëg mun na la sonal ñun nekkuñu politique jóguñu pour dal ci kaw kenn suñu droit la ñuy laaj nañ ñu delloo suñu liggéey buñ ko mënul woon sax waaw te buñ ko munul woon sax di def lu bon sax dañu war a jàngal ñuy def lu baax parce que tey yi ñoo ñu gën a tàng tey dëkk bi kees goo dégg ñoo koy toj lu fi dégâts yëpp ñoo koy def dëkk bi nu mu tilimee sax seen responsabilité la. université bi can ñoom la politiciens yi. waaw mbalit mi can ñoom la. waa jooju doon dawal oto bi keroog taximaan bi yëg ci kaw pont bi. ñoom la. ah déet lu mu jot ak politiciens yi. mais ba ñuy toog ay jamono. xam nga permis da nga koy jaarale yoon. mais ku ne bu amee sa benn booy bu nekk village nga wutloo ko permis par lijjanti bu paree xamul régul permis waxuma la kaw pont mais dina def dégâts njaga njaay yi rey yëpp seen yenn responsabilité politique yi la. kon dëkk kenn du ko teg ci ay lijjanti dañuy yar nit ñi jàngal leen teg leen ci yoon gis nga man mi ngay gis ni bugguma kenn ku ma jàppale ci leen te mun naa si jox exemple dama commencé woon ci benn affaire mun naa ci gën a sore gis nga bi ma defaree bureau prototype bu Habib Thiam yooyu premier ministre Habib Thiam après temps yi maa ngi doon dem ay foire président Diouf di ma dégg su ma yëngu daal neex ko giñ naa ko ci rasulullah ñu woote suma bureau na ma président Diouf dafa soxla tey wala suba man leen président kat bi ma soxlaa damay ñëw léegi ñu ne maa kon ñëwal booru 4 heures booru 4 heures ma dem pare président toog ni ci siis ma toog ci siis maa ngi jël yàlla seere mi ne ma cheikh ma ni ko ah, mi ne ma dama la gis dégg naa li nga def bureau bi dama kontaan ci yow xam ne ñu mel ni yow war nañu moo mën mun a jàppale pour ñu avancer léegi yow mobilier national bi ñuy def naka nga ko xalaatee ak ma jox ko suma xalaat ma ne ko entreprise yi tolloo ñu doole mun nga def ay loo yu ndaw ñi ay table de bureau ñii ay chaise ñu tas ko mu dugg fépp Sénégal. Mm-hmm. boobu xale laa sax gën naa nekk xale. Mm-hmm. président Diouf pare toog xamal nga ma wax mi ne ma yow ci sa bopp yow naka laa lay jàppale pour nga jëm kanam. giñ naa ko ci Rasulullah ma ne ko soxlawu ma dara luñ may jàppale yàlla mi ngi may suturaal yàlla mi ngi may yërëm man daal li ma bëgg mooy rek nañu xaritoo loo gis lu ma nar a gaañ jógee ci yow rek nga dox sama digganteeg loolu. Mm-hmm. parce que gëw ma sax président war ma may. parce que gëm ni war naa mun a demal suma bopp parce que lu tax du ma gëm loolu parce que tamit dinaa waxaat leneen ñun dañu am lu bare lu ñu war a jàngal suñu génération yu ñëw xam nga métier bii da ngay gis tey ñu ne xale yi utal nañ leen ay financement ñu ngi feeñu teg financement balaa nga ko utal da koy jàngal liggéey boo ko jàngalee liggéey ba pare doo ko wutal financement te financement sax mun nga ko moytu parce que mooy li gën a dangereux jàngalal nit ki ba pare jox ko liggéey mu dem liggéey loolu lañu ñu mun a wax parce que man tey jii damay xool damay xool tey entreprise nit ki da koy xam man quatre-vingt mille francs CFA macha allah ma gërëmee ko yàlla ci laa ubbee MKR gis nga fi lu àdduna yëngu yëngu yëngu yëngu yëngu bu ma lambee yor quatre-vingt mille francs pour man sama capital mi ngi ci man ba tey loolu ngay def ci boppu nit ki ba pare entreprise doon loo xam nit ki da koy jur. ëmb ko jur ko muy raam mu jàngal ko dox yar ko mu mat mu mun ko yor ba nga xam ne day mel ni doom bu mu jur bu hmm. sibiroo mu xam bu dee yaram bi dafa tànk bu amee fièvre mu xam ko noonu la entreprise yi mel parce que xool te entreprise yu bare jóg rek ñu buub la benn fond wër la ay affaires yu bare entreprise yooyu yëpp demuñu fenn hmm. tey mun naa la wax beneen wax hmm. ma gërëm tamit am na benn jour yàgg na premier ministre bi fi nekkoon Abdou Mbaye ku baax la nag tamit dama toog suma ci yee di liggéey projet am na ñu vision bi benn banquier bi gën a mag Sénégal ñooy tudd Walf Jorgensen mu war ko yóbbu visite yóbbu ko fenn daf ko yenu indi ko suma at gis nga bi ñu fa génnee barke Rasulullah waa ji ci financement FPE bu menuisier yooyu mosuma si jël ñaar téeméer kon menuisier mooy def loolu ci dëkk waaye dama ko may benn tableau bu ma liggéey loxo defe naa yombal na loolu pour état bi kon ñun buñ ñu delloo ginnaaw buñ ñu teg ginnaaw parce que tey li ñu am nii lu mu bon bon dara la yàlla am na lu mu jël may ñu ko am na lu mu jël def ko si ñun léegi nag lu ñu yor nii dañu war a fexe ni Galien meloon ak garab ga ba mu liggéeyee ci garab ba tey tey ji xam-xamu garab boobu la bàyyi ba garab raw la mu doon defar tey li ñu am ni dañu waroon fexe ñu mun ko jox tey transmettre ko suñu génération yu ñëw te bu boobaa di nga am cent cinquante mille yu raw Cheikh Gueye parce que olof nee na lëg mun na jur lëg mu gën koy gudd nopp mais du toog ba ñu mel ni dun njaay roos rek yow dem ak suñu xam-xam ko te ñun ci loolu la ñuy def te loolu baaxul ci dëkk dëkk da déglu faale nit ñi li ma capital expérience bi may xam nii foruma ko ma gërëmee ko yàlla ay mag ñoo ko def ci man ma gërëmee leen ko mu ne ci man mm-hmm. mais est-ce que bi ngeen créé seen association boobu di menuisier Sénégal est-ce que jot ngeen am ay ndaje yu ngeen am ak ñi nga xam ne ñoo jiite nguur gi waa bi ñu amee bi ñu créé association bi tudd menuisier du Sénégal ñun ñu ngi daje ñu ngi ci àll bi yëpp ñu ngi continuer suñu liggéey mm-hmm. mais nguur gi defe naa information yi ñu war a am yëpp am nañ ko si ñun président bind nañ ko ba sonn mosuñu wuyu def nañu ay lettres ouvertes mosuñu wuyu mais du tey may wax menuisier yi rek mhm. àdduna lu ne na nga si def sa jom gën a am sa jom ñun yalwaan ñu dañuy laaj lu ñu moom te menuisier yi ñu xam ne tamit du xeet bu tuuti ñu xam ne ñu yàlla fonk lañu parce que yeneen yàlla nóot sax ci bant la nekkoon kon nag bu leen kenn tuutil du ngeen ay nit ñu ndaw na ngeen gëm ni xam-xam ngeen ne te menuiserie mooy ndeyu métier yu bare ci bant la génnee ñu tàbbal ko ci ba ci. kon bu ma la déggee daal dafa mel ni kon euh, li nga xam ne moo di nguur gi euh, daf leen a tàngamlu. waaw nguur gi daf ñu tàngamlu ba pare te tàngamlu gi sax mun naa ci wax du tàngamlu rek yem ci. Hmm. parce que boo ñu dégloo ba pare da ñu war a jox cër jox cër ji mooy lan mooy que waroo toog ñun ay nationaux. yu wér nga xam ne ñun lii dañ ko soxla mun koo liggéey nga ni yéen ñii di doomu dëkk bi yéen lii quinze pour cent rek ngeen ciy lekk kooku au travail premier miss moo ko wax au travail man nag xaw ma ñun lu ñuy travail foog mu jàppale ñu wax ñu ko. ci 15 pour cent waaw. Mhm. loolu foog wax ñu ko xam nga parce que tamit loolu baaxul loolu baaxul bu man xam nga tey yaa ngi dégg may jël ay risque ak di wax damay monter unité de production wala dara mais loolu risque la. Mhm. risque boobu may jël gis nga risque boobu nu mu parce que tey war naa def ni samay morom tabax ay appartement du luyeer tëdd fële bàyyi menuiserie du ma ko def dama koy monter bu Sénégal sax commandul ci man ma sàkk pexe parce que loolu mooy suma cër te al xam nga dëkk wala dafa ne ab say la te wi aw saw sayu matt la te ku nekk nang ci yenu la cox dox doolee tollal man nag sama wàll ci say wi sama matt dinaa ko yenu ba fa may tëdd ak moom mm-hmm. mais du ko teg mukk waaye nag nee nañu sayu na ko sëñ bi waxee woon rek bu dul buum bi ñuy takkee digg lépp lu ñu mun lenn lu ñu mun a jëriñoo du am ci réew mi kon nag kooku mooy njiitu réew mi mooy buum bi moo war a defal dëkk bi dëkk bi yëpp di dox mm-hmm. mais bu ñu toogee rek gars yi wër la non bul wax ak kii demal fii gis nga kër gi sedd gii teeru bàyyi suuf gi man lébu laa mm-hmm. fii laa dëkk doon satu Youssou Bamar Gueye fii dëkk fi mm-hmm. teeru bi suma teeru xam naa dafa sedd lool président bu ñu fa dugg rek mun nañ la fa nelaw nelawloo. bu ko ngelaw lu ëppee rek waaw mun nañ la fàtte loolu xew ci biti. mu fàtte la xew ci waaw président maa ngi lay ñaan di la yónnee message. dëkk bi fi mu nekk nii taxul. menuisiers yi ñu ngi sonn. ak ngeneen ak ngeneen ku la tëj foofu di la wax dalay wax lu la neex. defal phase soxla askan wi. keroog acte boobu nga def pëpp ngeen rafet na woo gars yi tiñal leen ba tey baax na mais demal plus loin gën a sore. mais ku la ni yaa li daloon Diouf dal Wade mi ngi ñëw sa kaw. loolu baaxul gars yi lay nax. dëkk bi yënguwul mën yi jotuñu dara gars yi ngi souffrir banlieue bi mu ngi metti loolu nag kenn yéenewu la ko parce que président bu ñëw nga ñun ñëpp ñu jox la suñu doole kon nag ñun bu ñu demee ba mel neneen ak yow rek defe naa loolu seen côté la jóge mais ñun soxlawuñu loolu politique ñu loolu yëkkatiwuñu suñu liggéey la ñuy laaj suñuy droit nañ ñu ko jox mhm. waaw am na lu ñu leen di reproché yéen ñi nga xam ne yéen ay euh, artisan sénégale yi laay wax booy seetlu rek euh, maanaam bu ngeen di euh, jàng métier day nekk ne dangaa dugg école école ma sottiwul comme sa cas nga dugg ci métier wala boog koo xam ne sax xëy na mosta dugg école ñu ne na dem jàngi métier mais amagul ba léegi école de formation boo xam ne dañ ko taxawal ñu ne école de formation bii kat ku ci dugg euh, mën nga cee jàng métier bii rawatina métier menuiserie nga mën ci génn am sa diplôme di liggéey liggéey bu professionnel yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci secteur bi d'abord waru leen cee xaar état bi yéen seen bopp ban jéego ngeen teg ci taxawal lu mel ni école de formation waaw loolu laaj nga benn question boo dama ci waxoon ba xam naa bii sax mooy sama dernière wax. Hmm. sinon lii de sama koy bàyyi ak yàlla ak ñoom. parce que man dama liggéey jiitu na ba Ablaye Wade di dagg autoroute à péage bi giñ naa ko ci rasuur Rasoulaay ba muy xar tali bi dafa fekk suñu tool yi fa nekk terrain yi ma am mu fay ñu indemniser ñu. mu nekk fan. ci jamnaajo bi pool bi ngay wax nii. waaw maa ngi ko fi doon wax fan yële. dama fa am ay terrain waroon def unité de production. war a def ay centre de formation xaaruma ci état. maanaam yow amoon nga projet. école de formation te giñ naa ko ci rasul def naa ci lépp cent millions. lu tax sottiwul. waa terrain yooyu dama ko am defar ko ba pare yàgg naa fa ba Ablaye Wade di dagg autoroute dafa indemniser ñëpp moo tax président ñu war ko dimbali gars yi dimbaliwuñu ko parce que maire yooyu baaxul ci dëkk Ablaye bi muy xar autoroute bi kese tool yi tiim talib yëpp ku ne daf la bindal chèque indemniser la chèque bi colis postaux la ko gars yi retiré. mais tey jii bi ñuy ñëwee waa pool bi ak hectare dañu jël suma sax terrain man ak yeneen terrain nit tëdd si jaay doole jox ko man sumay terrain man mi di wax chinois man sumay terrain mi ngi ci loxo chinois te def naa plus de cent millions. sa terrain yi nga amoon ci pôlu Diamniadio waaw la ñu jël ñu jox ko ay chinois pour ñu def fa parc industriel ba léegi man ma mun la wax dara des fois dëkk bi boo xoolee suñu njiiti rek ci yenn si ñoom doo am courage trop da ngay xool ba ñuy jël suma terrain y avait APIX ñëwoon na di def médiation bi ñu bindal ma ne ma bind ma après ne ma nañ la recaser y avait le préfet Mar bi nekk Bargny bu Tëngéej ñëwoon na y gaaw pool bi ñëwoon na mais depuis que ñu jël terre yi jox ko chinois yi mënuma gis kenn ku ma waxal te giñ naa ko ci alxuraan dootuma ci wax te dama gëm ni yàlla dina ma àtteeg ñoom mhm. maa ngi koy giñ ci alxuraanul karim bi ko giñ ci kaaba gi gëm naa yàlla daf may àtteeg ñoom dootuma waxati ci wax terre def naa ci cent million nag te gëm naa 100 millions ci def fàtte naa ko bés boobu teewuma nelaw mais danga bëgg a wax ne délégation bi ñu dénk euh, euh, pôle de Diamniadio te kii di Seydou si Sall jiite ko ñoom ñoo teg loxo ci sa terrain yow. Seydou si Sall ak équipe ba moom jiitu sax moo teg loxo samay terrain. man dootuma ci waxati parce que bi ma wooyee dafa ni ma dans deux jours dinaa la recaser joxaat la say. moom Seydou Sy Sall moo la wax loolu waaw. te man li ma leen di xoolee xoolee ma leen sax bëtu jël suuf bi mhm. ñàkk farlu boobu. ak ñàkk patriotisme boobu man loolu laa leen di xoolee xool ni ñii ñoo jël ay responsabilité dinañ defar dara te dama xool bi ma defee loolu ba pare dama toog ma xool projet bi président Macky Sall am pour def ko ci ville boobu ma xool ni kii mooy doxee nii ma giñ ko ci rasulaay du def loolu maanaam munul defar loolu parce que nit ki booy defar loolu dafa am dëkk am na ñoo xam mu munoo leen beddi hmm. te keroog bi mu toogee maa ngi dégg sax président woo ko Popenguine ci li ma gis ci écran bi xaw ma na ëpp na loolu ne ko foo toll mu ne bon am na benn Jetran am na Yirim Sow am na Seen India Seen India moo ko fa jiitu man kooku ci pôlu waaw maa kooku ñoo fa amandoo suuf defe naa hmm. ak euh, ak euh, yàlla salim xaw ma benn école bu janoo maa leen fa jiitu te Yirim Sow nga baal ma yàlla bon amul man moom mooy seen locataire foofu la seen bureau ne xanaa moom lok moom kañ promoteur am boobu cherché wul de loin dafa am ko ci buntu nañu jël nationaux yi ñoo mun tabax dëkk bi Yérim Amar dara lu ma ko c'est un vrai patriote c'est un combattant sénégalais pire la buy liggéey di consommer local amuma dara lu ma ko wax ku vision la nag ku jar ñu encouragé ko la hmm. mais ni ñu gën a yaatal encouragé sénégalais yi te xam ni loolu mu wax président keroog bi ko président toogee sax mu man dama toog ci télé di ree dëkk bu rëy boobu mu wane télé du kii moo koy tabax maanaam du Seydou Sy koy tabax da nga bëgg a wax ne euh, pôle de Diamniadio bu dee Seydou Sy Sall rek du sotti. giñ naa ko ci rasulaay mënu koo tabax dangay xool ci melo nit ki te nit ki dafa war a prouver dara xam nga tey looy doon sëriñ looy doon nekk sëriñ da nga war a nekk taalibe ñoom lañ la wan ci seen culture seen adduna lan la ñu wane. ah Seydou Sy Sall mos na fi nekk ministre ba ñëpp di ko rafetlu liggéeyam. waaw non attends xam nga ministre boo may wax ni diw nekk na ministre dootul dara man gis nga ministre gis naa ko gis naa mode ministre bu ne. gis naa mode ministre bu ne man tey dama doon gëm man ba ma ak moom sax waxtaan nañu échangé. dafa ne ma moom mi ngi def sax xaw ma teesam ci affaire mbay ak affaire ouvrage wax yi génn wax yu leer mais bu amoon vision dëgg du xalaatee noonu gis nga Chine gi ngay dégg tey muy toj àdduna bi ouvrier yi koy yëngal te président ba mu demee wooyu marocain yi wowul ay ministre ay ouvrier la woo ouvrier yi ñoo yor àdduna bi ministre yomb na ne léegi léegi jógeel ci park bi rek dem toog te ministre bu ñëwee ñëwul pour defaral ñu dara ministre dafa ñëw pour toog mbëkk kees gi dem ba loolu tamit ma ciy soññaat yenn politique yi du ministre yëpp nag mais nañu fexe éviter keesu réew gis nga ñi fi jiitu woon si jamonoy Senghor di sàcc suñuy ñaq di ko dundee jënd ay kër Paris yóbbu seen ay doom seen doom yi jàng ñu téye leen Paris koo ci fekk léegi doom yi ay drogué lañu ay bandi lañu parce que alalu mbooloo moo mel noonu gis nga man léeg pour ma fay benn cutis wala ma fay dara ma fay impôt mais en plus yëpp dañ lay yónnee huissier di la mbugal mais dañ lay mbugal ba ngay génnee say bakkan di génnee ndox après nga jox ko benn nit mu ne ko tungaaf loolu wóorul gis nga boo lekkee sax sa miraasu bàyyi bàyyi say rakk du la jig asamaan nga jël miraasu réew bu ko lekk nañu moytu lool xoolal tey jàngoro yi nga gis yi si gën a garaaw waxuma xool wax ma fu muy génne ci alal bu bon hmm. ci politique yi la tey politique boo dégg ñu koy nomee sa daan budget bi ma yor budget temps la keroog gis naa ko jëlee benn post ñu ne dañ koy yóbbu beneen poste foofu moo ëpp 119 milliards la mais 119 milliards du ndaw na bàyyam. maanaam budget ba lañu xool. xooluñu liggéey ba mu fa war a def. non non moom laa doon wax sànq ne la problème yooyu mooy suñu problème léegi moom budget ba la xool kon budget daf ko war a jël lekk ko budget bi moomu ko sa say xaalis la ñu jël sama bos bu diw bu président ñeneen ñu boole yëpp teg ne nañ defar suñu réew kenn jël ko lekk gisoo politicien bu wàccee nu muy gaaw wala bon. xam nga man maa ngi tey ne la sama terrain yi sax bu ñu ma ko delloo doot ma ci wax terrain yi maa ngi damay liggéey si jamonoy Diouf bay liggéey si jamonoy Wade nee naa la fu ma làmbee yor quatre-vingt mille francs fàtte naa terrain yi parce que damay gërëm yàlla ne ci lii la ma jëlalee ci lii la ma defal kon aw ma droit taxaw ne fii laa war a mën a yem dama war a am courage. waaw mais ci pôle de Diamniadio boobu yaa ngi critiqué liggéey bi nga xam ne Seydou Sissal mi ngi koy def moom mooy délégué général bi euh, est-ce que am nga proposition aussi parce que aussi euh, il faut nga nekk force de contribution yow lan nga mën a proposer loo xam ne euh, bu buñ ko defoon ci pôle bi mu jëm kanam mu bañ a yem rek ci jël nañ suma terrain dañ maa burnu xataal donc affaire bi du réussir. non man déedéet déedéet su ma bos sax mun naa ko teg nale mais dafa am loo xam daf fi cosaanoo nga tey solution nga ma laaj loolu rek dama koy yóbbante président. président na dellu jëlaat ay SICAP jëlaat ay HLM yi fi amoon kooku daan na tax xale bu génn kër ndeyam ak baayam këru boppam la daan dem directement daaw ñoon xam appartement te appartement bu yàggee wóorul àdduna mun na tëradi doo ko mën fay problème am man damay danga daan am da nga naan nekk sa kër yaay gis benn di dem SICAP di verser di verser ba am kër dem na jëlaat SICAP ak HLM yokk leen doole yóbbu leen ci loolu ñu def fa dara mais bu ko jëlee rek mel ni xaw ma li dañ ko privé xaw ma nu mu tudd loolu baaxul ñii duñ tabax dëkk du ñu tabax dëkk président vision bi rafet na kenn mënu ko compte xoola mm. mais gis na loolu wam na fexe seet ak ay entreprises yu mag yu ko mën mm. doon nag ay nationaux nag waxuñu mm. ñu indil ñu xoola ay naar ak i chinois ak i ñeneen nañ ñu bàyyeeg suñu dëkk te gis naa keroog benn société xam ay ambulance ay defar maa ngi gis gaa yi taxaw mel ni ku koy sarax suuf mais suuf yombul fenn ci àdduna boo xam ne da koy denc sa peuple mais boo jëlee loolu yëpp jox ko dama ragoon lu daloon ci fermier ay dëkku Rwanda xaw ma dina fi amaat dinañ yow bëgg jël suuf dem di xeex ak ñooñu du wóor yooyu mooy suñu réserve mooy suñu ay doole rek ñu koy dencal ba pare tey sa këru bopp mi ngi fi këru waaj bi mi ngi fa parce que tey bu sikaab taxaw logement yi yomb ngay verser soixante mille francs par mois mais mooy gën a yomb da am kër mais ñu nee tey ñii ñoo koy tabax ñetti immeuble affaire yooyu loolu ma gis noonu ah président yàlla na ko yàlla dimbali projet bi sotti waaye loolu ma gis xaw na ndaw ak ville boobu ma seetaanoon mu rafet trop neex ma trop nag mhm. waa man nag sama terrain bu leen neexee ñu delloo ma bu leen neexee buñ ma delloo bàyyi naa lépp ak yàlla. mais est-ce que kii di président Macky Sall euh, différent boobu nga xam ne wutale na ak kii waa délégation générale bi ñu jiite pôlu ñaajo est-ce que saisir nga ci président Macky Sall euh, daal di koy expliquer yow li nga xam ne moom nga am problème foofu. waa xam naa ni bon parce que tamit euh, saisir naa ko ci. lu bare ba pare bind. maanaam ndax bind nga ko lettre. bind naa ko lettre te fan yi sax bindaat naa ko beneen lettre. bindaale ko sax ñaari lettre benn bi mi ngi doon concerné loolu beneen bi concerné ci beneen fànn boo xam ne tamit dañ ko ci xamal yuy doxal yu bari ci réew mi bu ci góorgóor loolu dina ko mën a dimbali mais yàgg nañ ko bind yàgg nañu wax mais président xam nga nag tamit euh, Diouf état président moom laay moo tiim lépp président fi ma nee nii sax xam na ko amul dara lu ko ëmb président mun nañ toog dajale ba tool noonu mu xam ni ñii wër nañu Sénégal mënu yëpp a ngi seen biir mais président loolu échappé ko loolu amul président moo warul nangu loolu ñun jóguñu pour dara xeexu xeexuñu ñu daluñu ci kawam. suñu liggéey lañu laaj. ña ko wër nag ñoo koy xelal yooyu nan ko ñu ngi nii président bu ko ko compte sax dafa war wax ak yow. parce que yàllaa ko nattu mu ne sa président. loolu la. kon nag tey bu ñu toog rek saisir nañ ko bind ko man pôle bi li may wax ci ñoom dama siy dellu si man Seydou si ba mu ma jëlee ne ma. sa tere yi y moom y kase AGM ne a dans deux jours dama lay recaser loolu yàgg na mais giñ naa ko ci rasulullah dootul dégg ma woo ko ci wala ma doxi ko damay bàyyeek ak yàlla rek parce que tey xam nga tey ñun dañ nekk kii dëkk am lu ñu fi jot a def am lu ñu fi jot a prouvé MKR xëy na lu mag waaye tamit macha allah xam nañ ko dégg fu bare ma sante ko yàlla kon kooku lu mu am ci dëkkam mooy nga encouragé ko poussé ko mooy waxu formation bi nga doon wax mais formation bi ñu dañ lay former ba pare wax la entreprise fu muy jaaree sax parce que tey nit ki bu defee si dara quarante et quelque mais war na ci xam dara xanaa lu mu nëx la. mais est-ce que kii di président Macky Sall lettre yi nga ko bind est-ce que tontu na la ci. président Macky Sall moo suñu tontu ci dara dina yeewu daal dégguñu après mu yeewu ne nommé na diw fii nef nef na lii mais loolu doxalu affaire bi président Macky Sall dafa war a toog ak nit ñi waxtaan ak ñoom ñu seet lii defar Sénégal réew benn nit mënu koo yanu dafa président lu mu xam xam xam kayit yi la may gën a xam waaye bant yi maa ko gën a xam. waaw mais dafa mel ni kon li nga xam ne moo daal kii di Doudou Ndiaye Rose ci écolom boobu mu bëggoon taxawal dafa mel ni moo leen daal yéen aussi parce que yéen ngi yuuxu yéen ngi bind lettre président waaye dafa mel ni daal euh, pale bi dafa am euh, benn euh, mbir moo xam ne daal mooy téye lettre yi. waa xam nga ay gens ci palais yi loolu mën na fa am tamit wala mais président bu déggee ñiy wax rek war na jógal boppam parce que renseignement yi daf fay fanaan dina ni ñii ñii bant la ñuy wax. président jublu si ñoom loolu dal Paa Badou Ndiaros yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana mais loolu diis na loolu diis na parce que ñoo ñooy doomu réew mi waaw lu mu bon bon li mu naan tukki sax yóbbu drapeau Sénégal buy ñëw sax indi fukki dërëm ci dëkk bi dara la mm-hmm. état embauché wu ko te mi ngi dundal njabootam ak ñi dara ak moom mais loolu bu ñu ko ñàkkee tey am na jirim yu jooy ci wetam mm-hmm. te loolu waroon nañu fexe xam-xam googu mu mu li nit xam mu mm-hmm. yebbi ko ci njaboot gi mu des réew mi xam-xam waruñu ko jël di ko doxee noonu parce que man li ma xam ci ban mun naa la ko wax nee naa la tey jii ñu toog yor fii trois cent et quelques essences de bois. Hmm. Afrique Amazonia sax duñu moroomam. trois cent trois cent et quelques essences de bois xeetu bant yoo xam ne am na ci Afrique bi rek. waaw tey nga xool Amazonia sax duñu moroomam. France loo fay dégg sapin chêne merisier palissandre li des duñ ko teint amuñu ban ñu suñu àll bi ngay gis nii tey. Hmm. alerte naa ko nag président bu yàgg tey li ko chinois yi toj. Hmm. yóbbu ko dafa yàgg du tey. tey këriñ giy jógee foofu di dugg Dakar. mais xamuñu ban bant sax mooy ñëw kon ñun dañu am ñett ñun dañu am bant yoo xam si dafa sax ci tàngaay amul ndox mm-hmm. ñun nag bañ ko xamul ñee xam ko di ko sàcc yóbbu ko ba mu jeex nag léegi ñuy soog a jóg waaw mais état bi fan yi rek jël na décision nee na dagg bi ñuy dagg bant yi fi nga xam ne moo di lu mel ni Casamance nañ ko arrêté euh, décision boobu yéen nu ngeen ko accueillir non foofu dinaa la foofu foofu état dafa yàgg jaxasoo mm-hmm. bii ak bi jiitu foofu dafa am bu ngat na bu fa am mm-hmm. xam nga tey nga doon nationaux tey ñu doon ay sénégalais suñu bant jël ko jógee Tamba ci jamonoy Senghor sax laa la booy dugg si Dakar ñu jàppale yóbbu kaso même bant boobu de laa lay wax te bu ko pël bu ko pël photo bi jëlee ci àllu Kolda bi tëddal ko def ko kërin camion bi romb garde bi dugg ñu toogee ko ceebu jën kon ku muusul bois bi bu ñëw en bois ñu jàpp ko mais bu nekkee kërin romb kon dëkk dañ koy régler gis nga même président waxuñu ko sax mu dem tëj forêt bi yëpp parce que bu ko tëjee am na gaa gaar dañ nekkoon foofu di dund ci bant bi day metti ci ñoom mais xam nga lu mu war a tëj sàcc yi sàcc suñu bant di ko génne te forêt kenn du ko tëj da ngay autoriser nit ñi ne leen arbre bii mature na mun nañ ko abattre te ku abaat na nga reboiser noonu la ñuy xamee forêt man forêt yi may dem ci àdduna bi dama gis waa ji daggkatu bant bi day am dam pépinière lu mu dagg reboiser bu reboiser gars yi dal ci kaw parce que am na arbre yoo xam ne fu muy tool dañ ko war dagg mbaa mu wàcc ci kaw nit mm-hmm. ko mu tëj forêt yi déedéet mais mu jël tamit bant bi sàcc yi kay yóbbu la ñuy wax chinois ñu taxaw ñu bàyyi suñu bant bàyyi suñu àll te loolu du ci chinois yi kese mais loolu ci géej gi la barki def dama dem di jënd jën quoi fekk fa benn jën bu ñaaw ko quoi ndaw si ne ma bii mooy jën bi amul coof sax mi ne ma bii mooy jën ñaaw neex ma ne ko waa léegi ñun ñaaw neex la lekk ani coof yi <laughs> xam nga ma xam ne ñaaw neex ma xool ko jën bi ñaaw xam ne du dem bitim réew hmm. même suñu géej dañ ko war a régler dëkk dañu war a jël li ñu am gis nga waruñu topp tubaab bi da doon ay complexe ak topp seen ginnaaw di dërti dërti tubaab bi defuñu sax nawle faale wuñu président bu yéeg wala boo fa ñëwoon léegi soo sa costume bi ñu ne la waa way waa yow daal vraiment tu es un tu as fait tes études vraiment tu as niveau très kii nax la hmm. nous sommes des africains nañu liggéey suñu dëkk téye suñu lu ñu am fonk ko gëm suñu bopp de décomplexé suñu bopp ci li ñu mën a jëm kanam mais fii ak doxin gii mi am président bu ñu nommé wala ministre bu ne boo demee kii dugg génnaat seeti tubaab bi tawaaf ñëw toog tubaab bi dem ñoom ñun fenn loolu ñoom suñu maam yi la ba léegi pacte bi ñu signé ak ñun la toujours ay neegar lañ ñu teg hmm. waaw euh, bois Sénégal bi nee nga chinois yi dañuy ñëw di ko sàcc di ko yóbbu euh, lan moo tax suñu bois bi intéressé étranger yi loolu mais suñu bois bi dafa doon bois bu mag parce que bois bu baax hmm. parce que bois bi fibre yi ñoo fermé te bois bi yow loolu dooma ko laaj gis nga kër gu sénégalais dëkk gu ne na nga xool gën a kuur gi ne ñaata at la fa def kookooy suñu bant te ay kuu lay jot ba ngoonte du yàqu boobu mooy bantu senegal ko kenn jarul kenn di ko laajte boobu lañu am muy bant bi gën ci bant xamuñu ko te gis nga Afrique ñu ngi commettre erreur bu ngand tey chinois yi ngi jënd forêt yu ne ci àdduna bi kon man maa la giñal fii giñ naa ko ci rasulaay dans douze ans chinois yi ñooy jaay massif ñun ñu alku ñooy dellu si di ñu jaay suñu bant waaw ñu alku te tey naa la wax dara dafa am benn geste dama ko gërëmee président mooy que usine bi mu redressé Thiès SNTS xaw ma bi def textile bi mhm. lu rafet la ci dëkk mais man dama xamul boo redressé usine bu mel noonu ba pare dem indiwaat ay chinois ubbi leen parc industriel si wet ñu concurrence usine boobu ndax baax na boo redressé daal da nga koy aar te suñu aar ñun ñii suñu dund mhm. ci yàlla la dépendre mais xoola aar gi président loxoom a ngi ci mhm. ba keroog nag yàlla def liggéey mais nañ ko xamal ni war na gën a taxaw ci nationaux yi gën a jaamu suñu soxla te xam ne ñun ñëpp xam na lu ñu ko yaakaare rupture kese bi mu ñu digoon la ñu toppee ci ginnaawam moom bu amuloon programme sax ñun loolu rek lañ ko doon waaw rupture boobu gis ngeen ko wala gisu leen ko si seen domaine laa bëgg a wax non suñu domaine tey la gën a pur tey la waalo gën a aay parce que tey maa ngi lay wax menuisier yi fi ñu ne maa ngi lay wax lu ñu mën a jàppalee menuisier yi tey jii président war a def face déglu loolu déglu loolu déglu mënu yi rupture bi ñëw ak yeneen ak yeneen mu def ko gis nga dëkk du politique kese te politique yi ñoom seen règlement de compte ñun suñu yoon newu ci ku yéeg ñu da ñun newu ñu gis nga ñun président Macky ak président keneen ak buy ñëw ñun ku wax suñu soxla yaay suñu mbër suñu bant yi mooy suñu parti mooy suñu liggéey mooy suñu métier mooy suñu sutura président bu ñëw ci ñu fekk ku dem ci ñu fekk dafa am benn ministre dafa ma mas a woo ministère am bi ma ñëwee mu bàyyi ma may poire te yàgg na ma maar may ñibbi ma ni directeur de cabinet maa ngi dem mi ne ma yow ministre woo la ngay ñibbi. Hmm. ma ni ko non sa ministre bi laata mu doon nekk ministre fekkoon na ma ne menuisier te buy wàcc daf may wàcc ma kon ne doon menuisier. Hmm. parce que man profession laa yor moo tax maa ngi dem parce que mënu ma ñëw di traîner fii 40 minutes heure bi mun naa daaj ñaari buntu dugal sama jabar. Hmm. Cheikh Gueye 2STV mu ngi lay gërëm di la sant ci teew bi nga teew fii ci suñu plateau amul na boo. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm borom kër gi El Hadj Ndiaye ma xam ko tamit bu yàgg. mu doon ñafekat dëggantaan xëy na li ma dem solida moo tax mu bàyyi ma trop mais su ma nekkoon ko dafa ma daan jaar jël yóbbu buy añi indiwaat boobu mi ngi nekkoon fële di defar ay cassette mhm. ñuy ànd nag studio bi décor yi fi ne yëpp bi mu jëndee studio bi def naa si njëkk dugal fii man ci laa bokk ne ma Cheikh kaay décor menuisier beeg yooyu yëpp man maa ko firndoon mu koy defaraat mu doon waajoo xam ne ñafe la genre bii rek mhm. dañ la war encouragé kii ku ko yóbboon sax si bâtiment ci pôle mu def dara mhm. parce que am notion wu liggéey xam ko laa doon bëgg wax ci kooku ñooñ defuñu loolu liggéey da koy xam mu nekk sa yaram ba pare nag may gërëm bépp menuisier bu bokk ci association bi di la baalu àq di la massawu di la encouragé te xam ne lu metti lu ne na ko nit muñ yàlla dina def yërëmandeem mm-hmm. yàlla dina leen saafara seen jàngoro nañu dox nañu wékk suñu bopp yàlla bàyyee suñu bopp yàlla ni kéwal bàyyeek boppam yàlla mm-hmm. kon daal ni ñu ko waxee 2STV euh, euh, depuis euh, studio mille ba fii ñu toll tey ci 2STV yàgg na ci consommer local ñu ngi lay gërëm di la sant Cheikh Gueye. jërëjëf Massa yéen itam mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen fàttali rek suñu invité moo doon Cheikh Gueye Cheikh Gueye nag boo ko déggee moom moo jiite menuiserie Khadim Rasoul nekk tamit président des menuisiers Sénégal di yëngu ci wàllu yi maanaam ci wàllu bant di leen jox dox daje dimanche bi di ñëw bu 15h jotee maanaam ñetti waxtu ci bëccëg ci seen émission amul na boo faral di waxee nag amul na boo bu ko kenn tarde ndax fii la lépp di leere jërë ngeen jëf